comme comme ni ngeen koy gisee nii oto baa ngi nii fi la gars yi ñëwoon caxat caxate ko yëpp yëpp yëpp yëpp na ni fi ne dafa mel ni presque dara desatul ci magasin bi magasin bay lépp lañ taal lépp lépp lépp luy bagage te bay taal nañ ko mi ngi nii policier yaa ngi nii taxaw di jéem a rek jërëgle circulation bi ak euh, yenn force de l'ordre ak en civil ñuy ñooy régler circulation bi circulation baa ngi topp le moment mais en ce moment c'est un peu dangereux parce que boo yaa ngi continuer di manifester lacrymogène yi moom beneen affaire la nooyi bi dafa metti trop trop trop trop instant côté bi nii donc euh, auto sapeur yi kaaru sapeur yi ngeen di gis circulation baa ngi noonu di di xaw a tuuti dina xaw xaw na yëg tuuti mais mu ngi dem quand même ah sapeurs yi ñoo fi ñëwoon raxas lépp fay lakk-lakk yi desoon peut-être y a des résidus de de feu yi desoon mais sapeurs yi géré nañ ko ah mi ngi noonu auto police bi ngeen di ngeen moom ngeen di gis noonu suñu kanam noonu auto sapeurs yaa ngi nii saax fii mais dugg nañ ci ban bële bi ngeen di seen noonu ci kanam weti Euh, Njaga Njaay bi ci lañ dugg ñu ngi noonu di dem apparemment ki leen di jiitee moom mooy ñëw noonu ci wetu euh, Njaga Njaay bi mi ngi joxe ay signe de la main pour wax gars yi ne nañ avancé ñu ngi noon di avancé mais côté bii moom boo yaa ngi di dikki ak policiers yi voilà policiers yaa ngi noonu am na benn boy bu ñu jàpp ah, am na benn boy bu ñu jàpp gars yi xam nga de civil la ñuy nekk dañuy nekk en civil infiltré donc euh, parfois dañuy jàpp booy yi la te doo xam ne ñoom la ah mu ngi noonu ah dañuy ñëw jàpp gars yi dañuy dugg seen bi dañ leen di infiltrer jàppale te doo xam ne kii policier la loolu nag moo ci garaaw donc mu ngi noonu ah waaw booy baa ngi ni jàpp nañ ko booy baa ngi nii jàpp nañ ko. mi noonu booy baa ngi nii jàpp nañ ko ñu ngi nii dugg yóbbu ci oto bi ah noonu pañe à salade bi koy yóbbu ah pañe à salade police bi lañ koy yóbbu mi ngi noonu ah pañe à police bi lañ koy yóbbu ñu bëri nañ bëri nañ fii ñu bëri jàpp nañ leen ah ñu ngi leen di ko dugal ah, noonu yeneen boo yaa ngi nii morom yaa ngi nii noonu ah. waaw policiers yaa ngi noonu xam nga policiers yi am na ci ñoo xamante ni ay civil lañu dañuy ñëw ah, civilu dugg seen biir ah jàpp booy yi donc yoboo ku nekk na nga def attention parce que policiers dañuy civilu jàpp booy yi dañuy noonu ah, boo deful attention rek doo xam ne kii policier la fekk policier la mu ngi taxaw sa wet nga sànni xeer wala nga def wax dara ñu jàpp la nii noonu ah voilà pour le moment circulation baa ngi dem ndànk-ndànk hmm? circulation baa ngi dem ndànk-ndànk oto yaa ngi nii di dem comme ngeen ko gisee mi ngi noonu oto police baa ngi noonu sala paja salat baa ngi nii kuñ jàpp foofu lañ lay dugal ah beneen policier baa ngi nii taxaw à côté di surveiller ku ñu àndi mu ñëw renforcer dugal la ci biir pañe à salade bi fu ne ni pañe à salade bi fees na dell ay booy ñoo ñoo fa nekk fees policier en civil ñoom ñooy dugg booy yi dem foofu fu ñu nekk jékki-jékki jàpp kenn poñe la andi la ah te kenn du mun dara mi ngi noonu ñu ngi nii ba ci léegi ah ñu ngi ci Auchan bi ba léegi kon ni nga koy gisee Auchan bi ni mu ngi nii Auchan Castor ah daal nañ ko ba mu jeex kat waaw auto police a ngi nii di yegg si auto police moo nekk nii di yegg si pour wax leen ne lii yëpp c'est lié à l'arrestation du président Sonko Pasteur ah pour vous dire lii yëpp c' est lié à l' bi du président Sonko de Pasteur gis nga police auto police bu ñëwee gars yi daw ah mu ngi noonu mu ngi tey moom xaw na compliqué trop trop trop trop trop compliqué na trop oto yaa ngi nii ah mooy Auchan Castor bi moom la ko koy taal policiers yi ñëw nañu ah, sapeurs pompiers yi ñëw fee nañ lakk-lakk yëpp ah oto baa ngi nii oto baa ngi nii fee nañ lakk-lakk yëpp ah mi ngi noonu yaa ngi ci tali Bourguiba bi nii hmm? tali Bourguiba bi la Bourguiba bi moo nekk nii gars yi fee nañ lépp mais situation bi xaw na calme tuuti mais peut-être un calme qui prépare la tempête on ne sait pas qui annonce la tempête on ne sait pas mais en tout cas ñu ngi noonu ah waaw sama gaa a ngi noonu di def ay direct voilà circulation baa ngi noonu boo yaa ngi taxaw ci beneen côté voilà gendarme yaa ngi ngi noonu di commencé nañ sànni commencé nañ tëmbal a ngi noonu di daw ah policier yaa ngi noonu di tas nit ñi voilà fokk nit ñi génn policier yaa ngi tas gars yi ah voilà jàpp nañ beneen booy encore mi ngi noonu jàpp nañ beneen booy encore ni ma leen koy waxee policier en civil ñooy dugg seen biir dem jàpp leen dugal leen ci ah muy loolu oto baa ngi nii oto bi moom du fees moom yaa ne ñu ñëw rek dugal la foofu waaw na sa bi dugg rek baax na waaw na sa bopp bi dugg rek policier en civil ñooy dem jàpp leen ah gars ñu leen xam waaw policier en civil ñooy nekk foofu noonu dugg seen biir téye te duñ ko xam ah, mu ngi noonu liggéey bi métti na de liggéey policier bi métti na de waaw dama naa yaa ngi nii waa presse baa ngi noonu taxaw ah waa presse baa ngi noonu taxaw ah def gaa ngi gaa ngi de fii moom xaw na tàgg waaw da gis na gaa ngi naan ne dugaat ci oto yi di dem ils sont en civil ils sont civil ils font un excellent boulot parce que ñoom ñooy dem infiltrer booy yi fi ñu taxaw jàpp leen ah ngi noonu ñoom ñoo nekk noonu en civil ñu ngi doon def ils sont en civil ils sont en civil dugg ci oto yi rek dem topp booy yi ñu jàpp rek ñu ngi noonu ñu ngi noonu groupement yaa ngi nii ah ñu ngi noonu di demaat encore ñu seen ay 200 yi di dem ñu ngi def liggéey de ci ay la xam nga ne doole doxul jàmm de.

jeunesse bi doon rek dem ngi noonu L200 yaa ngi nii pick yaa ngi nii ñu ngi noonu yeneen pick-up yaa ngi nii ay demaat opération saa ñu rek am ñu indaale waaw waaw waa ñu ñëw soriñu ay tëni waaw ñoom moo tax ñu jàpp booy yi parce que dañuy métti booy yi waaw waaw waaw waaw te saa yi ñëwaatee jàpp benn booy indaale dugal ci paña salade bi doo xam fu ñu jógee waaw ci ful bi la dugg rek taxaw ku ñu gis ñu ku ñu gis nga sànni xeer rek jàpp dañuy bañ dañuy bañ ngeen film ngeen waaw waaw léeg-léeg boo leen filmé ñu jàngal waaw dañuy sàccaale noonu la ñuy def noonu la ñuy def noonu la ñuy def noonu waaw waaw moytu leen daal moo gën a wóor attan nañ ñëw jël nangu sunu sunu sunu liggéeykaay waaw attan nañ ñëw nangu sunu jumtukaay yi xam nga ñu nag ñoom mosuñu jubóo ama eh, eh, eh, journalistes yi ak force de l'ordre yi ah c'est toujours le crime de la terreur léeg-léeg ñu jubóo léeg-léeg ñu jubóo ñu ngi noonu oto sapeur yaa ngi nii moo doon fay lakk-lakk bi fi amoon ci Auchan bi fii Auchan Castor bi a apparemment pare nañ seen liggéey ñu ngi noonu di dugal seen i bagages ah ngi noonu di dugal i bagages voilà la situation est revenue à la normale circulation baa ngi dem oto yaa ngi circuler normalement policier boobu ko wax mi ngi noonu moom dem ci reportage bi la bokk ah ñu ngi def liggéey bu mucc ayib circulation baa ngi dem donc euh, tali Bourguiba bi ku bëgg a dem banlieue wala boori front de terre bu la defee nga jaar fii parce que gis nga ni circulation normal na gaa ngi ni ñoon di dem waaw ah, ñu ngi noon di dem de gis nga ne ñaari oto yaa ngi noon di dem de gaa la ñuy dugg dem ñëw bu ñu ñëwaatee rek ah fii fii fii day waaw mu ngi noonu de gaa ngi noonu ñoom moom amuñu caaxaan waaw Auchan baa ngi noonu hmm, moom lañ caxat caxatee tey Auchan Castor mu ngi noonu Auchan Castor la moom la gars yi taal ba mu jeex takk sapeur yi fay nañ ko ah sapeur yi fay nañ ko am na ni presque liggéey bi fii jeex na sapeur def nañ seen liggéey policiers def nañ seen liggéey sama gaa ngi noonu hmm, waaw circulation baa ngi fluide oto yi bëgg dem fii mën nañ ko def am na ni. bu bëggoon dem côté banlieue ba jaarale euh, Bourguiba bi mën nga dem côté front ba côté front de terre bi gendarmerie côté front de foofu yëpp libre na léegi amatul benn problème waaw leer na nañ gars yi bu ñu ñëwee rek régler circulation bi demaat a ngi noonu gars nag sapeur pompier yaa ngi nii dafa mel ni ñoom seen liggéey bi jeex na def nañ seen liggéey ba pare ñu ngi def seen fi ak seen chef bi ah xam naa ñu ngi tiré conclusion yi buñ defee buñ paree rangé nañ seen bagage yi ba pare ñu ngi noonu di def depi débriefing ak seen chef bi voilà chef baa ngi nii di def débriefing hmm, ñu ngi noonu chef baa ngi noonu di def débriefing bi <laughs> ma gars yi la Pape Doudou ñoom Pape Doudou ñoo may menacé noonu